sëriñ bi ku gis nen nag ni nen a ngi te tey moom ganaar la ñu gis ak i nenam fii ci théâtre de verdure mobilisation bi am na solo détermination bi gis nañ ko mais aussi qualité mbooloo mi gis nañ ko kon sëriñ bi gàcce ngalaama mais nag ki tax nga def ko kooku la nit ñi war a xam mooy kan ci yow son excellence le président Macky Sall sa xarit sa wëllëre sa mag kan mooy nag la président Macky Sall le directeur général de la Petrosen le ministre de l'énergie le ministre de l'hydraulique le ministre de l'intérieur le président de l'Assemblée nationale le directeur de campagne bi président Ablaye Wade en 2007 kooku mooy son excellence le président Macky Sall foofu ñu jaar nag bu ngeen gisee li tax ñu wax ko dafay parcours boo xam ni ku fa jaar yaakaar naa ne fi mu jaar ku fa jaar man ngaa taq ban Serigne Modou Ngay xaritam di wëllëreem ngeen bokk nekk lu yàgg 2007 bi ngay créé am wadd jàpp naa ni ñëpp a ngi fi woon nga créé am wadd ànd ak moom di liggéey yàlla dogal mu jël réew mi et de ba léegi un président né après les indépendances liggéey fii ce que aucun président n'a pu faire dama ni la président Macky Sall mérite respect engagement mais également aussi mérite une victoire éclatante au soir des élections du 31 juillet à venir et je pense très bien que ni Serigne Modou un acteur comme lui Serigne Modou un marabout déterminé comme lui Serigne Modou un gars plein de plein je pense ku mel noonu doonul koo xam ni ku ñu war a bàyyi ginnaaw la nous lançons un vibrant appel aux leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar que ñu bàyyi xel Serigne Modou ñu jàppale Serigne moodu taxawal ko parce que dañ ko soxla ci biir lii ñu jëm muy ay élection élection yi ñu jëm nag ay élection présidentielle primaire la kon du élection yi ñu war a caaxaane du yoo xam ni dañu war a bàyyi kenn nit sax di dem nous avons besoin d'addiction mais non pas de soustraction et que Serigne Modou fait partie de ceux qu'on doit courtiser pour que mu mën a ànd ak ñun ci biir engagement boobu loolu it je lance un appel à l'unité du département de Mbacké pour que ñu mën a gañee dama ni on a des opposants forts en face de nous on a des opposants redoutables ayons la courage de le dire et que ñu gis ni nag jot na Serigne bi nag wax dëgg yàlla ci xilaafaam jot nag victoire président Macky Sall fii ci Touba. koo xam ni sëriñ bi daf la wax ni la ba ngay wuti sañu ma laa ñaanal ndax la nga bëgg sëriñ Touba laa ci yaakaar kon kooku jàpp naa xam nañ fi mu ko teg bi mu gañee ñëw mu ni ko léegi mën naa laa ñaanal ngir yen bi oyof ñaanal ko kon war nañoo mën a décrypter message sëriñ Mountakha ñu bëgg a taxaw nag ci division ci yàqalante ci ay chemin ba xañaat victoire Macky Sall bis bu ñu ko defee mooy dugal nañ Sénégal ci guuta parce que réew mi xajuñu ci ko cohabitation réew mi xajuñu ci kiy gagné assemblée que la pouvoir bi nañu leen joxaat Macky Sall assemblée nationale bi pour ñu mën a gouverner le Sénégal suñu ko defulee le Sénégal dana nekk un pays ingouvernable te it ñi nga xam ne ñoo koy xëccoo tey jii ñu nga ne la ca place de l'obélisque des gens vertus de mensonge aucun engagement aucun programme foo leen fekk saaga wax lu bon tuumalante yàqalante ba xañ seen bopp ñoom seen liste bëgg a wëlbatiku di ko jooñ le président Macky Sall lan moo ci yoonam nañu wax ak la consti ak le conseil constitutionnel la constitution sénégalaise elle est au-dessus tout le monde ayons le courage de le respecter ñoom institution yi ñuy xas est-ce que bu ñu gagné woon dañ leen fii jëlee ils vont travailler avec eux kon nañ leen jox respe parce que loolu mooy seen cër mais nekk ci mbedd yi taxawaalu di saaga di wax lu bon dama ni nguur kenn du ko jël ci saaga ak xuloo nguur dañ koy jël ci programme nguur dañ koy jël ci bëgg dëkk ba nguur dañ koy jël ci xam li ngay liggéey mais ñoo xam ni dama ni dafa jot ñu jàkkaarloo nag ak ñoom ay pour œil dent pour dent ils ne sont pas plus gentlemen que nous ñun ñoo yor pouvoir bi ñun ñoo yor liggéey bi ñun ñoo yor programme yi dama ni nañu leen joxonte loxo kenn mënta tee le président Macky Sall gagné assemblée bi au soir des élections mais gagné ko sans Touba sans le département de Mbacké kooku gàcca la sans Serigne du Bara Dolly aussi gàcca la ndax il fait partie des hommes forts du département ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant baax parti allié yi nga xam ne nag ñoo fi teew ndax gis nañ fi Abdou Aziz Touré Abdoul Aziz Thiam Baye Saliou Dia Mayacine Seck Ibrahima sàmb ñoom ñëpp nekk ci parti allié yi ñu ngi leen di sant di leen gër tey jii ci tey nag bis la bu mag a mag bis la boo xam ne histoire dana ko nettali bis la boo xam ne nii ah, wàcce ko bu baax ñu bari dana ci xam lu bari wàcce ko solo waaw ndax li ko waral li ko waral dafa bari lool ca tekkeere di yàgg lool jàpp bi yàgg lool fu ne taxaw nan fa fu ne féete nan fa fu ne daw nan fa ngir ànd ak président Macky Sall nit mun ta weesu di daw di daw ba këppoog oto foofu la daw mën a yem foofu la daw mën a yem nit kii ñëpp xam na ne sëñ Modou Bara Doly képp ku mu àndal sincérité lay ànd ak yow waaye ñëpp xam na ne sëñ Modou Bara Dolly képp kum ànd ak yow ci dëgg lay ànd ak yow dama ne lu ëpp tuuroo ca ku ne du ma la topp fa ngeen jëm dafa soriwul loolu nag waxi wolof la man sëñ Modou Bara Dolly Basirou Gueye wax na ko léegi sunu xarit gannaaw bi nuyoo parti allié yi fi ne yëpp nuyu mboolem responsable yi nga xam ne ay responsable yi APR lan yàgg sonal président Macky Sall yàgg ko tay daw ak di ko ci guddi yëpp guddi ak bëccëg waaye ba tey kenn gis ci boppam mu mel ne dafa am benn lëndëm boo xam ne tey moo am ci guddi yi ñu toll ñun ñett ñëpp xam na ni guddi ak bëccëg ñu ngi daw heure bu tàngee bal yi di tàkk kan ngay gis ci dëkk bi sëñ moo Bara Dolly ngay gis ci dëkk muy traîner taalal leen ma ay bal daaru ma naan taalal leen ma ay bal wenti wit fu ne taal leen fa ay bal ngir man ñu gis may xuus ci seen biir ngir lan ngir taxaw président Macky Sall waaye nag nit ku ne gor nga ca gor gu ne gor nga ngor googu lan àndee depuis 2007 yàlla dogal ba nim nekkee ci biir PDS ñu ànd xeex boobu ba mu génn PDS ma am sama ndigalu waajur des PDS wàññi ko 2012 mu engagé ànd ak moom boobaak léegi maa ngi daw ñëpp xam na ne kim fi tànn tey bi koy tànn mu nekk député ñëpp xam na ne jamono jooju dëkk bi tàngoon na Serigne Assane Mbacké ñoom ak ñeneen ak ñeneen di attaqué président guddi ak ba bëccëg ñu ne kenn rek ci man dara muy sëñ Modou Bara Dolly ma jëg di ko engagé lu ne ñu wax ko ko wax ko soxnaam ma jëg engagé ba loolee lépp jeex tàkk. anamo booba kin fi tànn tey mi ngi cay mi ngi toog ci boppam liggéeyulut parti bi liggéeyulut président liggéeyut li nga xam ne mooy askan wi mu surtout défendre benn yoon assemblée askan wi mu wàññi ku génn biir PD biir biir APR dem ànd jeeg président Idriss ñu jàkkaarloo ak moom mu taxawaat ci dëkk bi di sànni ay xeer premier ministre teewut mu jàkkaarloo sëñ Modou Bara Dolly kon ki tey ñu bokk sant Mbàkke dëkk ci dëkk bii buñ ma njëkkee tànn ab liste di ko jiital ku ne Serigne Modou am na lu ko neex sëñ Modou amul lu ko neex amul lu ma neex ñu wàññi ko mu dellusiwaat ñu tànnaat ko ca ba muy démissionné ma nga nekk Porokhane ànd ak Idriss Seck ba léegi kenn mësut a gis fu mu démissionné ci Idriss Seck kon niñ ko mën a tuddee waa réew mi la d'accord ñoo ànd fi mu toll nii waaye tey bu ñu tànnee ñaar ci réew mi tànn benn jigéen du dëkk Touba ci APR Benno Bokk Yaakaar waaw léegi kon lan lan ko mën a tuddee non pas Benno Bokk Yaakaar mais si Benno Idi ci côté boobu mooy dëgg man dëgg du ma ko nëbbu beneen bi ca ñi ma ci tudd ñu neew la ñu dem ci li nga xam ne mooy conseil bi keroog bi président jaaxlee ñu naan ay góor jigéen ak lu lu ne ñu tudd ko maay cent 313 sëriñ biir palais. mu recevoir leen ñu jóg di xeex ba kenn waxutu loolu jàkkaarloo ak sëriñ si keroog ba ni tànn ba ni tànn dañu faa bàyyi dem tànn yeneen sëriñ lépp ñu ànd ak suñu ngor di muñ ñu demaat lu sulatif yi ñëw mu woo ma ma ñëw mu ne Abdou Lahad Gaynde Fatma ma lay tànn ma départ Dakar ñëw def directement këram na ko ah, lii ñu jëm de yow boo ci duggee da ngay daanu waaye waat naa ko sëñ Tuubaa man su ma ci duggoon jàkkaarloog samay rakk danaa ko daanee ndax xam naa fu may jaar. mu ne ma sama kàddu raw na ma ma soutenir ko jàppale ko ànd ak moom fu mu jaaree gauche ma jaar droite ba suuru élection bi sama kër lañ ko tëjee jël sama alal def ci ñu doxaat yàlla dogal ñu pert waaye fan ngay gisee nga perte yow mi say yow mi am say rak kenn ki nga bokk ak moom ndey ak baay kenn ki nga bokk ak moom baay nga dem def ay recours pour nangu élection yi foqor ci ko ki ñoom jox ko Abdou Mbacké la Gaynde ma man maa ko def moom defu ko ngir lan parti bi bokk yàlla dogal ñu koy jàppale ba noonu mu perte recours yooyu am ma dem def recours bi maag ab Babou Abdou Mbacké Ndaw ñu wàññi ku toog un an avant six mois ñu fal ko ministre conseiller ma toog di mu ñaat ñu toog un ñu ne ma ministre conseiller ministre auprès de Aminata Mbengue Ndiaye conseiller auprès de Aminata Mbengue Ndiaye keroog bi ma président di woo Aly Ngouille Ndiaye ngi toog ma ne ko soxlu ma ko mu ne man lan ma ne ko soxlu ma ko mu ne ma noo da ci jàpp ne en attendant am na lu ma lay dencal ma jàpp ne boobu ay élection législative la parce que ku sa bàyyi nekk député say rakk nekk député ngay xeexal parti guddi ak bëccëg te ñëpp xam ne demee boo demee élection boo demee assemblée la ñuy xaar 2024 da nga ko man waaye ay nit yu la duñ fa dem ay nit yoo xam ne buñ leen falee duñ dem assemblée duñ fa dem ay nit yoo xam ne buñ leen falee duñ défendre euh, euh, département bi duñ fa dem ay nit yoo xam ne bu leen falee duñ dépendre euh, benn Bokk Yaakaar waruñu faa dem waaye ñëpp xam na ne sëñ Modou Bara Dolly bu fa taxawoon dana défendre département bi dana défendre Benno Bokk Yaakaar dana défendre président de la République ñu tànn ñu tànn ko tey muy ñetti cër yëpp ma toog di muñ waaw ngeen jàpp na man damaa war a toog rek yam ci président Macky Sall sama xarit la d'accord sama xarit la kenn nattal bitu ko waaye nit ki bu amee fu mu la féete am ay doomi bàyyi ñu ànd kenn ñeneen nga am ay nawle ci dëkk bi yow it da ko war a féete fenn ba adduna bépp xam ko ma wax ne nag ku ne duma la topp fa ngeen jëm soriwul loo gis nag ab signal la 36 département wax waxagu ndam ak ñoom parce que ni def ci liste yi am rafetut nanguma ko nangu nangu jël leen suni casier judiciaire jël suñu carte d'identité bloqué ñu parce que xalaat na ne am na ci ñoo xam ne war na noo mën a dem ci yeneen liste anamu tey ngir lan ngir fexe ba ñun ñu nañ ñu xamoon nañ ñu ni tànn nañ ko tànn lu ñu koy laajee ngir dañu yaakaar loo man nag li may wax ñu ngi jëm ci ay élection am na loo xam ne du ma ko nangu te fu ma fas yéene egg ñëpp xam na ne bu ma déparé du ma arrière billaahi du ma arrière c'est que moom moom lañ mën a bundu xotaal ma Abdoulaye Wade di ko bunu ba mu jël lépp gedd ko delloo ko ko asamaa ñun ndax ay gor lan te am ci Sëñ Tuubaa moo ñu gën lu mën di doon nan arrêté lobby yi arrêté lobby yi lobby yi ñuy def ci dëkk bi ah di fekk ñoo xam ne yeyooyu ko joo xam ne xam nu ñu ko ñu leen koy jox lu ñu perte loo département bi loolu ko teg bas wax bas li mu wax léegi nii buñ ko joxoon ni ko yàlloo jox ko ñu mel ne moom Benno Bokk Yaakaar ak yeneen ndaw yu nekk ci lépp billaay du nga dégg sëñ Modou wax parce que damay xam ne ay waree politique seen waaye politique kenn du ko defee cib saal politique kenn du ko defee ci bu tàngee nga arrière di def ay lobby di ubbi ay permanence permanence jotagut xam lu jot nan la ñuy def ba nekk unité nan la ñuy def ba ànd nekk benn waaye di wër di nax président di wax loo gëmut loolu Modou Bara Dolly nekku ci ma de leen wax nag joxe waat naa rendez-vous incha rab rabbi be loolu tubaab bi wax benn bento bento bento bento loolu li koy indi mooy lan rendez bi ma joxe waat naa ko ci Serigne Touba mi ma yaakaar ca amul kenn ku may dendal heure bu ma tàmbalee duutuma arrière ndax duma koy arrière lii am neexut kenn ay lobby la dara du ci dëgg ca waa Touba nekkuñu ci ay lobby waa du noo am ay gëm-gëm ak i pas-pas maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di sant journaliste si di leen gërëm du leen joxe ci date bu bu gaaw bala yàgg danaa leen joxaat beneen déclaration boo xam ne bu ma koy def danaa leen wan foo ma jëm ak la ma nar ak la ma fas cam bu boobaa maag département yu bari ñoo koy ànd maa ngi sant maa ngi sant maa ngi sant yéen jigéen ñi maa ngi sant responsable yi maa ngi sant ñëpp